mbokk yi dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ku ne xam na ne eh, depuis barki dem ba tey Thiès mu ngi ci métit bu doy waar muy eh, nit ku màgg kooku nit ku tedd ko homme politique boobu nga xamante ni moom moo gedd àdduna barki dem monsieur Omar Badiane ñu koy jaale yëpp di ko njaboot gi ñu taxaw ki nga xamante ni nag moom taaw la ci eh, sëñ Omar Badiane ñu bàyyi ko rek mu nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziar mbokki jullit mbokk taalibe ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaw ñu sant yàlla ñu la rek nga présenté wu nga defal ñu ay témoignages ci sa papa. waaw man moom man la Cheikh Badiane doomu Omar Badiane moom su ma ne mën naa wax si moom sax loolu moom mënuma ko barke Cheikh bu Xadim ah doole sa doole muñ rek sant yàlla yàlla moom moo ñu ko joxoon moom moo ñu ko joxoon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu a baax a baax di gërëm ñi fi ñi fi teew ñëpp billaay walaay taala ñi fi teew ñëpp kenn amuñu seen fay yàlla xam na ko ñi fi teew ñëpp mbooloo mi fi teew ñëpp xaj ñu fi ñu sant bu baax a baax a baax a baax man moom sama bàpp moom mun maa fa sama waay la woon sama xarit la woon maa waxtaan lu bare bare bare bare la woon sa xarit la yu mujj yi nga xamante ne jot nga koo jokkalante ak sa papa lan la neen benn kat la ma daan wax. nit day am bam bàmmeelu biir. wa wa wax jooju noonu. ba léegi day day day dox si man. nit day am bàmmeelu biir loo am bokk ak say loo am bokk ak nag mën nañu xam feebar bi lan la woon lan lan moo yóbbu. moom kenn mënta xam feebaram. moom feebaram kenn mënu koo xam soo ko laajee sax lam ba xam yaa ngi tax mu mën la lam moo ma daal kenn xamul ko dara kenn xamul ko feebaram dëgg neex yàlla moom feebar feebar feebar bi yàgg na ko sooxaale ba ba yàlla xam nga yàlla moom moom xalaatuñu woon li si ne àdduna àdduna bare mel ni moom xalaat xalaat xalaat xalaatuñ ko woon billaay walaay taalaay sant yàlla bu baax a baax nag sant yàlla bu baax a baax a baax. leen di masaw waaw ñu ngi leen ñu ngi leen njaal bi. amee kàddu goy jëm fi bàyyi comme yooyu yaay taw lan lay ginnaaw kilifa rek ndax moom amoon na kilifa muy muy muy muy magam Cheikh Badiane ñaan ñun nag si moom lañuy topp ndax moom à chaque fois leen topp leen seen man mi moom moom moom la ma tuddee Cheikh Badiane moom mooy taaw moom mooy kilifaam moom man ñi moom ñàkkuñ dëgg neex yàlla moom mais ñu ñàkk bari na soxna si billaay walaay ñu ñàkk ñu ñàkk bari na man bari na damay xool nit rek xalaat xalaat am na ma xalaat sama bopp billaay walaay taala mais nag waaw ñu ngi leen ñu ngi leen delloo jaar leen dërëm di nga ñaan yàlla rek yàlla ko àjjana voilà donc ñuy dalal ki nga xamante ni mooy monsieur euh, Sankaré Youssou jege woon loolu ki nga xamante ni moom mooy euh, monsieur Omar Badiane monsieur Sankaré ñu ngi leen nuyu bu baax di la siyaar maa ngi leen di fay yéen maa ngi leen di fay yéen waa Thiès Info maa ngi leen fay bu baax gis nañ ni bokkoon nga ci ñu jege woon loolu Omar Badiane tey boo amee kaddu yoo xamante ni moom ngay jëmale ci jëmm jooju lan lay président Omar Badiane est-ce que est-ce que soxna si man wax ci moom dina ma diis trop parce que mën naa ne bokkoon naa les ñi mu gën a am confiance parce que ba ñuy campagne ci législative euh, élection maire la feebar bi njëkk njëkko njëkk daaneel mais bokkoon naa maire maire yi waaw municipal yi ci la ko feebar bi njëkk daaneel ci ba ñu sàccee benn photo bu ñu defoon euh, ci permanence bi Euh, ci la ko affaire yi arrivé daal par la suite man bokkoon naa ci ñi ko gënoon jege bokkoon naa ba ñi doon dugg chambre à coucher man mii di wax ak yow nii bokkoon naa ñi doon dugg ci chambre à coucher Omar Badiane du du du du sama leader man sama xarit la yàlla moo ñu boole mu am ci man confiance trop su ma jëloon ay xob sax baxal ko jox ko na ko naanal day naan wallaahi al azim euh, muy nit ku dëggu nit ku gëm yàlla nit ku social. nit ku mën a dimbali doomu aadama te nit du ko xam nit koo xam te daal man dama dafa mel ni dañoo dagg sama genn wàll ba ma ko yëgee sama relation ak moom dafa dafa dafa joué ba ci sama famille ba ci sama koñ ñëpp a ma di ma jaale Omar Badiane le jour du décès maa ngi ci yoonu Touba bi mais ñëpp ma woo di ma jaale Omar ba donc tout au long ci maladie tane woon na tane woon na macha allah après élection yi tane woon na bu baax a baax a baax. bu baax a baax a baax semaine passée daal la feebaraat dem naa fa sax seeti ko d'ailleurs ba ma demee maa ngi ko fekk fële kër deuxième femme bi mais li mu njëkk a wax mooy yow noo def ba xam ne man maa nekk fii ma ne ko man nee naa la man maa yor sa lépp vraiment ku ko jege woon laa vraiment. mu sa début wax. mooy eh, feebar bi biñ ko dalee ci élection yi ci bi ñu sàccee photoom eh, est-ce nga ñu tekkil loolu. bon loolu loolu li mu mën a tekki mooy Omar Badiane ba ñuy ànd ak moom dara jotu ko. il était bien important franchement te ku dee ak sa bàmmeel li may wax nii lu ma wóor laay wax lu ma dund laay wax lu ma xam laay wax lu ma fekke laay wax Omar Badiane bokkoon naa ci ñi ko gën a jege nee la j'étais la seule personne buy dugg ci chambre ak coucher am dem naa ba ulay jabaram man maa ko tere ne ko nit ñi ku ñëwati bu ma dugg ci néegam waaw que ba ñu sàccee photo bi daal suñu la affaire bi arrivé tànk yi commencé néewi mu commencé jour dafa daanu sax premier jour bi dañ gis constat bi ba mu dugg ci biir boobu gisugu ko sax dafa daanu par la suite ñu naxante ba yóbbu ko këram affaire bi ci la déclenché donc campagne bi bu ñu ñàkkee campagne boobu loolu moo tax. loolu moo tax parce que mënut dem na ba mënatul woon def dara mënatul dox mënatul def dara mais après élection yi il était bien important bien important vraiment ama daal ñun moom man xaw ma waa këram de xaw ma kenn mais man damaa gëm ni man maa ko ñàkk. man gëm naa loolu gëm naa ne man maa ñàkk Omar Badiane parce que fi mu ma féete woon gëw ma ne dina ma fa a féete parce que confiance bi mu amoon ci man rek beneen affaire la. dina ma diis nag trop may wax instant yi nii ci président Badiane ndax ku fonkoon la yëkkati ma jëlee ma fu ma fu fu suufee yóbbu ma fu kawe. alors bu ma xëyee rek ñu ne ma génn àdduna affaire bi ça m'a dépassé franchement waaw bett na ma trop mais may wax nii. comme ni ma ko daan waxee ci campagne bi rek parce que j'étais sur la liste j'étais euh, le numéro deux presque de de la coalition ànd ak liggéeykat yi au niveau de la zone nord. mais dama doon wax ci biir campagne bi yàlla jël na fi Mamadou euh, Mamadou Dieng bu mat di Fall waaye yàlla jox nañu Omar Badiane te ñu ko jàpp mais population bi malheureusement dégguñu ma pourquoi ma waxoon loolu. parce que Omar Wone ñëwul woon rek pour politique def la politique politicienne wala wax ju bon ji am léegi ci politique léegi nday jàmbur la ñuy tudd bàyyi jàmbur soxnay jàmbur. loolu moo xew barki démb assemblée nationale am ku jël soxna si jàmbur euh, jiin ko ni dafa tuddee keneen te ku mu tëddal euh, jëkkëram la xam nga yooyu dafa ñaaw Omar mosuma ko dégg ci yooyu moo taxoon. comme allié ci élection locale yi ma tànn ko du wax ju ñaaw mais xam la doon waxee Omar dafa bokkoon ci chantier de Thiès yi ci ñi ko defar bi ñuy defar chantier Thiès moom la Idrissa Seck délégué woon sa signature donc lépp luy fil luy câble lu jaar ci suuf Omar koñ bu mu taxaw mën na la wax ni lii moo ne fii ci suuf lii ne fële ci moo tax waa keroog bi ñuy defar seen euh, parking yi ñëw rek daal di tabax ma ne leen du noonu de li ngeen defar rafet na waaye est-ce que baax na est-ce que xam ngeen fa ngeen tabax fan la waaye xamuñu ko waaye bu doon Omar dana ko xam en grosso modo ma wax loolu nit ku social. énormément de pères de famille vont pleurer Omar Badiane lii ma la ko wax te daaw ko def ci gistal daaw ko def ci gis leen la loolu taxoon na lu ma ko tànnee Omar du def lu mu mënul amal mbooloo mu toll ni àdduna soo koy chantage Omar ne cède pas au chantage lu ma neexoon la ci moom doo ko chantage parce que da am mbooloo doo ko chantage parce que da am xaalis non il ne mendiait pas Omar toppul woon ci benn politicien pour mu fal ko bu faloo wala mu jox ko lenn pour mu ànd ak moom lu ma neexoon la ci moom lu jafe ci politicien yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla jéggal ko yàlla na yàlla xare ko àjjana te yàlla wàcceel waatal ñu ku ku mel ni moom wala ku xaw a mel ni moom. waaw liñ ci mën a sànni rek tey bisu naqar la parce que dañuy faral di naan bis amee ni su amee li ñu mën a def rek mooy ñaanal ko seede ci moom lu rafet man nag euh, monsieur Sow lañ ma gën a xam nekk président mouvement la sagesse. ñu yëngatu ci wàllum politique maa ñu xamee fànn boobu da yàgg siy liggéey euh, mais ñu xam ci moom dal xam ci moom nitu sutura xam ci moom nit koo xam ne ku màndu li ngeen di sekk waxtaanee ko ci biir néeg soo ko génnewul du ko génne yaakaar naa nit ki moom en tout cas su génnee rek àdduna ca na koy nañ koy dencee nañ koy waajale mën ngaa nat dimension nit ki waaye ku xool boobu ak léegi effectivement na mu demee da nga xam ne monsieur Omar Badiane nitu nit ñi la woon waa kër Cheikh Ibra la woon waaye te ku gis effectivement mbooloo mi ak kili kilifa yi nga xam ne donc teewee nañu bis bi bañ koy denc ak léegi nga xam ne ku aman noonu ak jàmm ñëpp la nga gis ni donc Omar Badiane liñ naan taraxee réew mi mooy benn lañu te kenn mënu ko xarañaar daanaka moom moo feeñ ci moom mënoo koo mënoo koo xaaj fenn foo ko war daanaka foofu la wuyoo donc wax dëgg fi yàlla tey dañu am naqar di jaale njaboot gépp Mor Badiane dem ci dem gi yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla suturaal lim fi bàyyi na ci ginnaaw ma njaboot gi yàlla na ko yàlla suñu borom teg loxo ndax bàyyi na fi lu bëri wax dëgg fa bàyyi na fi lu bari donc njaboot gi waxuma sax njaboot ndax ku dem yóbbaale nga projet mais dañuy wax ñaan rek suñu borom lim fi bàyyi akum néew ak njaboot gi yàlla na yàlla teg ci loxo yàlla na yàlla suturaal wax dëgg fa loolu daal la mu ñoon kàddu kon nañuy sant. Mhm. sàmm. Mhm. Euh, projet yi. Mhm. nan ngeen fas yéene taxawee ba loolu war gën a mën a avancer bu ko defee dañu fàtte ki nga xamante ni. man man maa ngi mujjee dégganteeg moom effectivement la veille jour bi muy génn àdduna man la veille laa mujj déggante ak moom au téléphone daanaka donc ba muy waxtaan ak man boobu mi ngi laal hôpital donc comme ni mu ko waxee rek daa mel ndax doon tàggoo ay nitam mais projet li ñu ci mën a wax rek mooy incha allah bàyyi na fi ay kilifa ci soxna ci ndaw ñi ci kilifa yi te jàpp naa ne incha allah xor yi ña doon àndal dañoo nduroog moom incha allah xor lépp li ci war ñi fi ne gëm naa ne en tout cas dinañ am mat ak dal. ak te ko ak tawxiit gi nga xam ne incha allah lépp lu ci war incha allah rek dinañ ko def. ki fi jógee tey dafa rëy ci ñun sori ci suñu xol lool doon kenn tam ci kër maam Ahmad Baro Ndiéguène naam wasilaam du woon foofu waane yàlla defoon na ko mu am ñëpp Omar Badiane euh, bu ñuy wax ci moom fii ba suba du fi jóg ndax euh, li ñu xam ci moom bari na ci mbaax ci yaatu am njëriñ ci nit ñi mën a sonn ci doomu aadama yi fonk ñëpp ku fi ñëw rek mën ngaa wax ni loolu nga fi ñëwee ndax kenn ku ci nekk am na lu mu jëflanteeg yow loo xamante ni jëflanteewu ko sa morom sànq ñi ngi taxaw déglu nañ ay témoignages yu bari waaye ku ci wax rek dangay jàpp ni kooku rek la daan jëflanteel kon Omar nit la koo xam ni wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla yërëm ko te jégal ko ndax euh, jàkke jee di jàkke maam Ahmad Baro Ndiéguène bari nit ñi ku daan laaj kan moo daan fay facture bi courant bi su daan ñëw ndeke moo ko daan def ci suuf te kenn mosu koo yëg ba bés la kenn wax ne ah lu baax dañ koy fisal faaw ñu wax jullit yi kan moo doon def lii ndekete yow moom la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci lu baax ci daara yi ci sëriñ si ci kër yëpp. loolu méngoog loolu kay sunu kanam la wax dëgg yàlla mu sawar ci waaw mën a def lu baax te daanu ko yemale foofu ci kër yëpp la koy def moom ku baax la woon ku social. man sama projet bi may taxawal fële ca Nduxura Pël jumaa jooj may tabax ak euh, école bi moo defar projet bi yëpp lépp moo ko defar te laajuma ci dërëm. donc sama digganteeg Omar sama càmmeñ la càmmeñ loo xam ne euh, bu yàgg la ndax ñoo dalandoo école depuis école primaire donc CI ba troisième ñoo ko defandoo ensemble. donc cheminer lu baree bare ma xam ci moom nit ku humble nit ku discret nit ku serviable nit ku bëgg a dimbali ay communauté kon loolu mooy li nga xam ni moo ma gën a rapproché ak moom ndax noom partage la même quartier peut-être liggéey moo ñu tàqale woon mais bi mu demee ba soxla ku ko jàppale il a fait appel à moi pour ma ñëw jàppale ko ci la zone nord bi nga xam ne il nourrissait beaucoup d'ambition ay ambition yoo xam ni tey c'était des projets importants pour la zone bi ma ko présenter en tant qu'agent de développement je ne pouvais que sauter là-dessus looloo tax nous avons cheminé ensemble pendant trois semaines lors des campagnes municipales. yow war nga bokk ci ñi nga xamante ni li mu fi bàyyi ginnaaw njaboot gi projet yi mu fi bàyyi nan ngeen fas yéene taxawee pour mu am benn continuité. Euh, loolu dinañ ci taxaw. parce que bi nga xamee ni génn nañ ci élection yi li ma ko njëkkoon a wax dama ko ni yéen ñëpp vous êtes des fils de la zone nord et que vous avez les mêmes ambitions pour la zone kon tey li ma bëggoon ngeen retrouver wu bu xamante ni politique bi jeex na campagne bi jeex na maintenant c'est la zone qui prime ngeen kii ndax kenn ku ci ne tu avais un programme que tu avais proposé aux populations maintenant il est temps que vous mettez ce programme là ensemble pour le bien de la zone nord et que loolu defe naa waxtaanoon nañ ci waat après mu ni ma sama xel mi ngi ci ba des élections législatives il avait fait son soutien à la coalition Yewwi Askan Wi et que bërki dem bi ma ko woowee tout juste deux semaines di ko laaj léegi maintenant où est-ce mu ni ma maa ngi ci parce que léegi dama bëgg a massifier le parti parce que dama ko bëgg a génne Thiès je veux en un parti national waaw foofu daal lañ mujjee waxtaane mais je pense que nous ne ménagerons pour que li nga xam ne moom la fi bàyyi ñu xool avec les forces vives avec les fils de la zone nan la ñuy def ba loolu ñu def ko mu nekk quelque chose de réaliste. Euh, président Omar nag dafa nekkoon koo xam ne kii vraiment en dehors du politique yi muy def day def développement te ñun ku ñu xam xam ñu ci yëngatu ci wàllu développement ak jàppalante mu yor cabinet vraiment ñu yàgg di seq ay teraanga muy def lu baax te kenn du ko wax. Euh, mën nga ci yow doy sede ci événement bu mujj bi ñu mujjee def euh, buñ ko defee ba ca suba ga mu ne ñëw naa waaye ñëw naa ak loxoy kese waaye yéen moom ku leen ñëwal war naa am neneen nu mu ñëwee mu daa defaat beneen délégation ñëw indi enveloppe bu am solo dajale ay quelques personne bëggul sax ñu wane ko ñëw joxe ko symboliquement te ngeen yëgu ko loolu dafa nekk ci moom loo xam ne di du ñun rek la ko defal mais defal na ko Cees waa yu bari defal na ko moom moom kenn la woon référence la woon ci domaine bi mu nekkoon mi domaine politique bi muy def parce que politique de développement dafay defar dara mais en retour du ci xaar dara tey nag boo gisee ñu ànd ak président Yankhoba Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite au niveau zone nord Lamine Diallo président Lamine Diallo président Malick Fall bu Grand Thiès président Assane Sall ah, président Bof Mbeng président des jeunes Gora président bi nga xam ne moom mooy Birane Wade ñu def une délégation bu am solo ñëw vraiment jaale si ko dañu nekkoon suñu papa man nekkoon suma xarit. sorewuñu woon waaye de temps en temps damay dem ci place am di ko di ko di ko seet jamono yi mu xawee wére di tuuti dama dem ba bureau am ko président activité yi may def damay bañ duma la ci gis nga yaakaar ne woowuma la mais damay bañ di la déranger ndax sa wér-gu-yaram mayu la ko ba boo gisee ñu def événement woowuñu la nga xam ne dañ laa noppal parce que yàgg nga ñu di jàppale chaque fois bu ma amee kenn koo xam ne kii day yëngu ci wàllu développement ci yi mu doon yëngu dama koy yoon yóbbu ci moom mu defaral ko ko ni mu ko bëggee sans autant laaj ko sax li nga xam ne moom moo war ci moom. loolu daal ay kàddu la yu mu séqoon ak ñun séqoon ko Thiès waa yëpp mu nekkoon référence ci Thiès koo xam ne kii vraiment ñàkk nañu ko. te dëgg rek moo ko ñor musoo ko dégg mu xaste mosoo ko dégg mu saaga mosoo ko dégg mu wax luñ koy xeebee te lu mu am bokk na ko Cees waay. ñu bokkoon man ak moom ñu yarandoo boobu def CM2 ñu ànd on presque cinquante ans def nañ ko. fi laa nekk ba 86 damaa dem Europe voyage mais Omar ñoo nekk di jàng ba mu dem Diourbel bi mu amee bac la dem lycée lycée technique bu Diourbel bi mu nekk université ñoo ñu ànd man laa yaroo maa ngi tokk soxna fii ci koñ bi sama maam sama rakku maam bu jigéen maam seen géy moo jur seen taawu papa Mbaye Badiane moo Omar ñoo bokk benn papa donc Omar ñoo bokkoon benn lal ñun groupe bi fii ci koñ bi six sept personnes la ñu woon Omar Badiane la woon Adama Ndiaye Alaaji Diop ak Birame Ndiaye ak Assane Bey ak man Moustapha Cissé ñun ñoo doon ànd temps xale ñoo yoroon ci koñ bi booba yi dara amu fi ci koñ bi euh, temps yàgg na trop que Birame Birame moo njëkk gaañu moom yaakaar naa bi mu gaañoo war na ma diis ans man fi ne ba 86 bi may dem même bi may dem Europe sax Omar moom ma yóbbu aéroport bi samay bien sama oto yi ma doon maasoo ba 90 oto yi ma njëkk a yónni mu jóg Europe moom laa ko doon yónnee donc Omar ñun ñoo xalandoo ñoo dafandoo lépp parce que mun naa xam ne tukki moo ñu moo ñu tàgg. maanaam ñoo xale ndoo ndoo defandoo yëpp kon bokk nga ci ñi nga xamante ne ay projet ci ay activité xam naa ko bu baax a baax. parce que lii mu doon tey man bettu ma woon moom parce que nit ku doon incarné kilifteef la dama ko daan tooñ sax bu ñu masaan toog daawul nangu da daan ferenkalaayu di ngi ma ne ko yow santoo Mbàkke santoo Fall parce que booba xëy na am lu ne parce que nit ku ne am nga loo man nag sama doyen moo doon ak taali bi moom laa doon si moom laa doon si moom laa bëggoon mais Omar daanu opté nekk kilifa même wax ndànk sax da ko daan def di ñu doon ko waaye looy jaay affaire u nii di ci da ngaa bëri tiital affaire yooyu ci loolu laa ko xam vraiment bi mu jàngee ba pare cim ASEP la njëkk a liggéey ba mu jógee ASEP cim la créé ay affaire am man politique bi mu koy commencé man fekk fi boobu man maa ngi Europe j'ai fait 30 ans def naa ko Europe li ñu tàggale ci Europe bokk bokkuñu politique man bi ma nekk Europe maa nekkoon coordonnateur Macky Sall bu APR bu Italie ma nekkoon coordonnateur ba bi ma yëg ci balaa fekk mu démarré politique bi ma gëjee gis moom ma tuggul yaakaar naa bi Assane Mbaye laa ñëw bi élection yi passé laa waxtaan ak moom parce que man maa ci alors Thierno Alassane Sall ñoo bokk jógee APR mu démissionné ma démissionné APR ñu ànd créer République des valeurs li ma mujj a wax mooy seet na essayé naa ñu bari mais Thierno laa bëgg a nii nii avant fin du mois bi lañ waroon gisante ak Thierno pour ñoom ñaar ñu ànd ci élection deux mille deux mille vingt deux bi. donc Omar nag aussi àdduna noonu rek la ku nekk sa mission bu jeexee mais gudd na fan parce que gudd fan mooy eh, sa àdduna li nga ci war def yëpp nga def ko. Omar nit ëpp na ay diplôme ci koñ bi dàq foon jàng gënu fi kenn mais fu mu jaar moom ba agsi fii moom loolu la ko yàlla dimbalee. di santaat suñu borom bu baax a baax a baax ci natt bi ñu teg tax nee nañu jaam bi balaa yàlla xam ne kii gëm na bopp gëm na boromam bu baax a baax dalay teg nat di la testé di xool sa ngëm-ngëm kon nañ ciy santaat suñu borom bu baax a baax. waaw man nag avant tout Omar Badiane dafa nekkoon sama nijaay ndax sama nijaay moom a boole woon ak moom mu mel ni dénkaane ndax sama nijaay damaa boole ak moom trois mois après mu de président nag doxee dox tànk boobu jël ma def ma jarbaat def ma xarit def ma lépp bëggal ma boppam wax dëgg yàlla deselu ma dara maanaam ki nga xamante ne moo jiite femme yëpp jigéen nag doy loo bu baax a baax dëgg yàlla mu metti loolu nag metti na loolu waaye dañu koy santawaat encore suñu borom rek wax dëgg yàlla waaw président nekkoon ku baax ku amoon mbëbët Sénégal mën naa ni fi mu toll nii gaw ma ne politiciens yi fi des dina am ko koo xamante ni toll na fenn président gaw ma ko gaw ma ko vraiment. sant yàlla bu baax yàlla mi ñu boole woon ak président Omar Badiane ñu ànd moom ci ànd bu rafet. ba ni ko fi yàlla jëlee dara ñaawul kon ñu gën a dellu di sant yàlla ndax yàlla moo nu ko joxoon te moo ko jëlaat ci coobareem ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na dàq mu jóge te li mu ci Thiès mébat ko ci Sénégal ñu ñaan yàlla na ko yàlla suñu borom eggale yàlla bu ci dara yàqu ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu fonda ñu def ñu famille ñu nekk benn famille ñoo ngi ñaan ci kàttanu yàlla famille boobu yàlla bu ko dara yàq yàlla bu ko dara tas président dafa nekkoon kenn ci ñun ba dëgg yàlla tey dañoo ñàkk koo xam ne nii maanaam waajur la ci ñun mu yar yarnu nag ci diine mais yarnu ci ñu gëm suñu bopp yarnu ci maanaam gor loolu la président ànd ak ñun lépp loo xam ne nii mënu ko sax danaa carrément man sama traay bàmmeel lii nii yàgg na ko sóoraale mi traay bii mu traay te yàgg na ko sóoraale ba soo ko waxee loo xam ne nii du ko def danaan la carrément du ma ko def parce que politique bi jaraluma dara duma ci wax wala ma dig ci kenn loo xam ne nii ëllëg dama koy layoo ak sama borom kon maanaam lii sóoraale woon na ko avant décès bi di ñëw mu yar nu ci ngor yar nu ci diine yar nu ci maanaam gëm sa bopp yar nu ci nangoo liggéey loolu président àndee ak ñun danoo ñàkk tey koo xam ne nii kenn la ci ñun mais Sénégal yëpp moo ko ñàkk kees yëpp moo ko ñàkk dañ naan président du fi amati parce que kenn nit dong la woon ca dem na. mbébétam bi mu amoon ci yéen jigéen ñi doon ànd ak moom. waaw mbébétam yi mu amoon ci ñun jigéen ñi muy ay financement mi ay ay ay ay ay céréales locales. mi ay lu bëri bëri bëri def ko mbébatoon ci ñun ba bërki démb rek mi ngi ma joxoon réunion boo xam ne dama ko waroon def man sama kër Madina Fall mu mbébatoon lu bëree bëri ay financement pour nu liggéey mbébatoon ñi nga xam ne nii dañoo am métier nu nu nu dugal leen seen métier nu kii pour dafa bëggoon daal jàppale nu gis changement la buggoon changement la yëkkati woon changement bu bees boo xam ne nii képp koo xam day ànd ak moom rek danga ciy gis sa bopp mais xëy na lii moo neex yàlla ca lii moo gën président omor Badiane maanaam géej la géej la kenn xamul fu mu commencé ba fu muy yem yàlla rek a sañ li moom moo ñu teg natt bi ñu koy sante yàlla bu baax président nag dafa nekkoon jëmm joo xam ne ku nekkul ak moom doo ko xam wallahi wal azim dëggu na yaru na am na lislaam yéew na li ngay seq ak moom yaa ak moom cundum la ak yàlla tey bu génnee yow yaa koy génne te aussi dinaa la xamal lenn si moom dëggoom dëggoom moo waral tey jii fi mu dem nii ragalu ko wallahi wal azim fu mu dem nii ragalu ko benn yoon parce que à chaque fois bu daan wax ak ñun damay ne ma Abdou ba ma ne ko laa bayka mu ne ma dee rek a wóor barke Cheikh Al tey parce que gëmoon na ne moom bis bi du jaas mukk si moom ba nga xam ne comportement am politique am maanaam Omar du wax lu dul dëgg bu lay bañ na boo leen di seq leen day taxaw ne la a ah, bu ma ko mënee wallahi wal azim bu ma ko mënee mooy waxam. lislaam ñàkk na ba pare ndax ki dem taalibe la woon donte it cravate la daan sol sol costume politique ndax moom jikko yi sang la yoroon waaye jikko yi nitu diina la yore woon waaw moom loolu la yore woon nag wama shahid naa ilaa bi ma alim man chaque année maay def euh, jàkka ji maa nekk ci yoro commission wu laaj ci jàkka ji monsieur Omar Badiane xam nu mu daan def weeru dee moo daan fay courant bi weeru dee lu tolloo quatre ans ñu jëm ci cinq ans moo daan fay courant bi man mii la ko daan jox bëggul kenn yëg ko waaw ci Zal 6 la daan jaar Zal 6 mi dëkkoon Kër Mama Laaji léegi dëkkatu fi waaye laaw mu nekkoon ni koo xamante ni euh, politique gi mu ne woon moom yaakaar na ni politique am politique gu diine la woon. parce que du wax kenn lu bon man musuma koo dégg mu yëkkati kàddu ci politique wax ŋàññi nit amul. ñaareel ba it yàlla mayoon na ko it lu mu la waxoon lu dëgguloon ci moom newuloon wax waxi politicien heure bu nee na nii mën naa ko danaa ko def lu mu la wax nee na mënuma ko du ko def du diggee it lu mu mënul ku dana ànd ak yow ci modestie ndax ko oyofoon la kon ñun ñëpp a ñàkk rawatina na kër ma El Hadj yal na yàlla xaare ko aljanna yal na dee di ndaf laa yam fa tabarakallahu ñu sant leen bu baax yéen waa Thiès Info ndax xam nañu seen relation ak président Omar Badiane ci activités yi ñu daan mën a yëpp fa tabaarakallaahu ngeen daan ñëw di ko ci gunge di nekk ak moom waaye nag ñu bég ci kontaan ci ñaanal leen ci yàlla waaye di leen wax ni itam ñëw ngeen ci bis boo xamante ne nii ki leen tax a jóg fa tabaarakallaahu am na ngërëmul ay way juram am na ngërëmul yàlla am na ngërëmu sëriñam waaye am na ngërëmu sénégalais yëpp fa tabaarakallaahu ndax eh, taxawaayu président Omar Badiane eh, ci senegal surtout cees eh, kenn mënu ko nattable amul kenn koy tudd fii ci dëkk bi di def ci di fi def lu baax te sa xel du daj nga ñëw def délégation seeti président Omar Badiane mu ñëw waaye bu ñëwee di nga xam ni góor piir ñëw na bu ñëwee itam di nga xam ni nit ku yiw ñëw na waaye bu ñëwee itam di nga xam ni nit ku baax ñëw na waaye itam nag ñëw ak forte délégation boo xamante ni nii boo dikkee yow doo bëgg mukk président Omar dem lu dul da bëgg jataay ba jeex loolu yéen waa Thiès Info mënu ngeen ko seede waaye du yem ca loola itam lamb ci wërsëgëm lu am solo ñëw teg ko ci nga xamante ni nii mu am moo am xew-xew boobu ñun ñi nga xamante ni nii ñoo seqoon ak moom langue politique bi mu formé woon parti boo xamante ni nii bañ ak fippu moo taxoon mu créé ko muy muy alternative sénégalaise doon parti boo xamante ne nii yàggul naam ti ñaari at ñett ñeent ñeent lay toll waaye mu réaliser loo xamante ne nii nit am na téeméeri at réaliser wu ko loolu itam ñu ngi leen koy seedeel parti bi nag incha allah ba léegi mingi dox ndax tegoon na li nga xamante ni lépp mooy tax liggéey di dem kanam yooyu yëpp installé woon nañu ko fa tabaarakalaaw dinañu ko continuer waaye président Omar doonoon nitu social doonoon nitu social doonoon koo xamante ni nii bu la dee dimbali ci loxo ndijooram loxo càmmañam du ko xam kooku itam ñu xamal leen ko bërki démb ba léegi média yaa ngi may woo di ma di laaj ndax ndax li ñuy dégg dëgg la ndax li ñuy ndax li ñuy dégg dëgg la ndax yow boo ñu waxee ñu mën a confirmer effectivement yàlla moo ñëw ak dogalam yàlla moo ñëw dogalam ñu sant diis na gan metti na waaye ñu sant ci yàlla bu baax a baax a baax julli ci yonent bi doolee ñaanal président Omar Badiane yàlla yërëm ko te jéggal ko. waaw salaamaaleykum euh, euh, waa Thiès Info gépp euh, tey nag bésu bésu tiis la bésu bésu naxar la bu ñu sañoon de bu ñuy ñëwaat tey fii ci Thiès. duñu fi ñëw pour di jaale si buñ sañoon nit duñu fi ñëw euh, ngir di jaale kii nga xam ne moom lañ ñëw di jaale muy Omar Badiane ndaxte nit ku baax la woon nit ku baax moom dangay njëkk a wax ne nit ku baax la woon nit koo xam ne la yoroon na ci liñ gis ci moom jikko jullit lañ gis ci moom euh, taalibe Serigne Touba di taalibe murit dëgg mu war ne ko ci ci ci ci doxalinam wane ko ci jëfam wane ko it ci dans relation avec avec nit ñi ci jëflanteem ak doomu aadama yi euh, nit ku baax kooku la ñu ñëw euh, jaale si ko waaye ñëw indi suñu naqar ak suñu njaal ci famille politique am mais ci famille am d'abord ensuite dans sa au niveau de sa famille politique. ñun ne dañ cee bokk yàlla moo ñu ci boole ndaxte tey jii jirim yi fi Ousmane Badiane bàyyi man Fadel jirim yi fi Omar Badiane bàyyi man Fadel Baro ci laa bokk man Fadel Baro ci laa bokk. ndax yàlla dafa def mu def ma doom ci politique moo ma ci jiitu moo ma ko gën a xam moo ma ci ëpp expérience mais mu nangoo ñëw doon mu nangoo ma nangoo doon sama baay ci loolu nangoo ñëw ànd ak ñun ñu bokk di sos di sos li nga doon wooyee eh, jàmmi gox yi maanaam jàmmi nit ñi maanaam jàmmi dëkkuwaay maanaam jàmmi Sénégal donc euh, doom jooju la cees ñàkk mu nekk perte bu mag pour Thiès. doom jooju la Sénégal manqué le Sénégal ñàkk mu nekk perte bu mag pour Sénégal waaye doom jooju noonu la bàyyi jooju la ci man man doom jooju man maa ko ñàkk muy fajal Barro bi nga xam ne euh, moom moo ñu jëloon rek choisir ñu parole ànd ak ñun ba nga xam ne épanouissement bi bi ñuy gént kër Sénégal maanaam jàmm ji ñu bugg ci doomu aadama yi jëkk fii ci Sénégal mu bokkoon ci ñi nga xam ne moom la ñu moom la ñoon doxal euh, donc di ko jaale waa Thiès gépp di ko jaale waa Sénégal gépp Euh, bu ko wax rek juste euh, Omar Badiane dafa bokk ci ci sénégalais yooyu nga xam ne ci doom yu mag yooyu nga xam ne ay royukaay lañ ay exemple lañu bàyyi na fi ci exemplarité maanaam ci jëf jëf ju rafet ju nit di royu mooy ne nga nangoo ànd ak nit ci jamono ji nga xam ne Sénégal presque alal dem na ba moom nit ñi dem nañ ba nguur ku ñu yëg ne yaa ngi waaj a jege nguur wala yaa ngi am ci nguur ñëpp daw ba beeku jëm ci sa kaw euh, Omar Badiane xoolul loolu yëpp choix bi mu def àndoon na ñun ci ci dem ci élection jàmmi gox yi daf fi bàyyi ay million bàyyi fi ay milliards bàyyi fi ay tour bàyyi fi jot nguur bu gaaw nde mu jàppale ay jeunes yoo xam ne xëy na seen yoon dina gudd waaye heure bu sottee dina nekk. l'histoire retiendra que quand quand cette histoire là a eu un moment jafe-jafe ba amatul xaalis bu bëri amatuñu alal ndax ña daan dimbale foog nañ naax ak ah, waa ji am na ñeneen ñu ko gën a siiw léegi Omar Badiane a misé sur cette vérité et force qui nous a nga xam ne du woon dara lu tarbiwu soxla jaamuy ak tarbiwu Sénégal ba mu génn ci guute gi mu nekk on retient man je retiens et incha allah j'espère que l'histoire retiendra en tout cas tout au long de mon parcours je me battrai pour que ce choix ñu rendre ko hommage jamono ju nekk pour que histoire politique gu Sénégal bu mu fàtte jëf jooju parce que dafay niru lu ndaw tey mais pour man à l'échelle de l'histoire jëf ju mag a mag a mag a mag la te incha allah fépp fu ñu toll ñu ngi ñaan yàlla rek mu ñu bakkan ñu ngi ñaan yàlla rek mu dëgëral ñu ñu ngi ñaan yàlla rek mu bañ ñu soppi ba fi ñu jàpp nii téye ko ñu tees ñu ñu ñu sax ci ba keroog ñu ciy am ndam te keroog bu ñu ci amee ndam incha allah dina nekk ndamu Omar Badiane dina nekk ndawu ñu ànd ak Omar dina nekk ndamu ñi nga xam ne njabootam nañ ak famille am parce que moom moo ci misé moom moo ci def choix moom moo ko dëggal moom moo wane ne jar na gëm. loolu c'est c'est c'est loolu rek laa am na laa xam ne laa ci mënoon wax munul ay engagement yu ma mën a jël li ci des ñaanal yàlla mu xare ko aljana ñun nag ay jullit lañ jullit lu mu am li mu am mooy sant nit dana ñu wetal jëmmal fii jóge waaye ñu ñun dañu bokk ci ahlul àq waaw loo gis loo gis geen nga loo gis bopp ba geen nga ñëw na donc dafa yéex mbaa mu gaaw mais ànd bu nekk nii rek lay mujjee mais nag ànd bu nekk nii lay mujjee waaye fii lay tàmbale ndax ànd buñ ko sosee ci yàlla buñ demee ba ne jeex na ndax kenn ci ñoom dem na la ko sosoon yàlla jooju mooy tàmbali donc ànd gi ñu àndoon na ngir yàlla muy dëgg incha allah dañ ko continuer ba keroog yàlla di ko yeggale fu mu ko mën a yemale jërëjëf wasalaam. sa générosité sa générosité Ousmane Badiane est un homme généreux un homme affable mais un un un un mooy loolu il est un visionnaire il est un visionnaire savoir miser sur la jeunesse c'est savoir euh, c'est c'est c'est c'est être un visionnaire c'est faire le choix le plus difficile c'est-à-dire que c'est-à-dire que aujourd'hui fu àdduna ñëpp di kurkuri di ut alal di ut mbooloo ñii di ut euh, nguur moom tànn na ci loo xam ne du jeex du dakk il a fait ce choix là li may wax nag du neex a dégg tey. li may wax ni du neex a dégg tey du neex a déchiffrer tey mais retiendrai et on prend date bu ñu demee ba ci kanam a kanam di ngeen xam ne il avait fait le bon choix parce que qu'il avait misé sur la jeunesse il avait misé sur la vérité il avait misé sur parce que yaakaar rek ko fi bàyyi.